bu mag daal di jeexalee kursam ci biir marché Colobane accident bi nag daal di am ci booru fukki waxtoog benn ci bëccëg tey ci samedi bilan bi nag ñaari nit daal di ci ñàkk seen bakkan. dañoo toog comme niñ ko faralee def di jaay gis benn 4 x bu jiitu di yuuxu di wax ci kaw naan daw leen am na camion bu saaraar mi ngi ñëw. camion bi nekk seen ginnaaw nii camion moo perte frein. booy nga xam ne ñoom ñoo lal ci kaw tali bi du ko dalee boo dugg Colobane ci autoroute bi marchand bi booy nekk foofu ñoom la roñ. sudul woon table ak yeneen yi ñu lal ci suuf yëf yi mënoon naa gën a metti. su taxuloon nag bali ak table yi ak saako yi nga xam ne moom la fa marchand ambulant yi tegoon konoon ci biir kër yi la jëm te bu demoon ci biir kër yi nag mënoon natt jéey gi fan lay fan lay dem. farawu goxu daal di teew ci barab bi ngir amal ab constat. li nga xam ne xew na fi tey suba. ay cours de 11 mu nekk suñu commune ñu ñëw fi gis accident bu métti ñuy tàmbale nag suñu kàddu pour jaale par avance mooy ñi nga xam ne daanaka ñoo si lor. li ni mel di fi am marché bi garage bi ak ni fi nit ñi dëkkee bokk na ci li nga xamante ni nag moo koy wundu. depuis 2000 ba nag ni dafa gën a yokk ni ma ko dundee mais bettu ma te damay ragal dinañ am. nous habitons. waaw ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk HLM Angle Mousse ak li ko wër ñun def nañu lu ne def nañu suñu kéemtalaay kàttan waaye tamit mujj ñoo am wala sax ñu gis benn autorité daal. on a vu tous les autorités possibles. marché bu yàgg la kon gis nañ ne aajana organiser aajana defar. ni yëf yi demee jaaykat yi nekk ca kolobaan di xam le ni mën nañ bañ a xëy ëllëg gaawoo ba ñu amal ay waxtaan ngir fësal seen plan d'action.